ngi tudd madame Gaye Anne Marie Diémé maa ngi représenté monsieur l'infirmier chef du poste man maa ngi sage-femme bi. liggéey Dangote li ko gisee dañuy def lu lu gërëm ko ndax Dangote daa ñu fekk population bi nga xam ne dañoo enclavé fii ak Morolan ak Thiès ñu ñëw ñu tabaxal ñu poste de santé bi. fa nit doon yéegee ci saret wala di dugg oto ngay gañang gañang balaa ngaa gis ku lay faj Dangote wàññi na dindi na coono boobu. comme jërëjëf Dangote moom la dem def jafe yi ñuy wax li ñuy wax mooy ne mooy logement bi ndax ku xam mbirum faj xam ne ne faj faj boo gis urgence la te ñun ñun personnel bi fi nekk amuñu logement par exemple boo amee accouchement nga bëgg a dem woy ji personnel bi nga xam ne mi ngi dëkk fii par exemple man ñu saa saa maa ngi loge fii à côté infirmier mi ngi fii ci benn néeg le temps balaa ngaa woo personnel bi bañ ñëw day jël temps alors que bu dee personnel bi dafa logé ci biir bi bu dee def cinq minutes wala retard dix minutes dina daal di jël en charge bi malade boobu taxaw noonu. gannaaw loolu xanaa ambulance bi ndax fii bu njëkk ba bu ñu daan fii ça fait un an bu ñu amee évacuation au niveau Morolan wala wala wala Thiès wala Tivaouane dañ daan woy ambulance Morolan te temps yi dafa faan dañuy obligé di woo oto yi nekk ci biir dëkk bi. pour ñu ñëw ñu yóbbul ñu malade yi. yi ñu fi am au niveau de la maternité dinañ def consultation prénatale mooy visite yi consultation post postnatale mooy bu jigéen ñi wasinee ba ci élection dinañ def planification familiale ak prise en charge bi yi avortement yi. au niveau infirmier dinañ dinañ faj ñi nga xam ne dañuy ñëw faj si ay bopp yu metti ay biir yu metti wala soit urgence yi nga xam ne ku damm-damm dinañ ko jël en charge le temps ñu évacuer ko. au niveau Thiès wala Tivaouane yooyu yëpp dinañ ko fi jël côté boobu waa poste de santé bi moom def nañ fi ay jéyee parce que ASC yi joué nañ lu rôle bu rëy ci côté boobu parce que dañuy dugg biir population bi ñu xool di def seen campagne yi ñu xool détecté bu ñu amee ay cas suspect ñu convoqué di leen convoqué ñu defaral leen prélèvement yi comme ça après ñu jox leen résultat ñu commencé seen traitement ba ñu commencé boobu ak léegi sax fait un an am na ñu nga xam ne def nañ seen traitement ba ñenn ñi ñu ngi jeexal ñenn ñi am na ñu jot a jeexal am na ñu nga xam ñu ngi ci phase jeexal am na ñu nga xam ne ñu ngi tàmbal waaw am na ñu nga xam ne sax ay kaa la ay chute la mais ñu ngi nangu di ñëw di faju côté faj mi moom ñi ngi sant yàlla ndax structure bi moom xam naa ne bu fi nekkul lan dina doon metti non non actuellement amaguñu cas suspect